ñeme nga sàcc. bu baax sax man booy jaxaw la siiw jaral na ma. Euh, foog nga sàccal ma loo xam ne groupe moo ciy teg seen bët maanaam loo xam ne dañ nga ko jàpp lu mel na télé. waaw ko ci kër gi nga koy defee. fan ak góor gi ci kër tiit. naa la jox gàllaaj boo xamante ne jamono yoo ko taqee. kenn du la gis. mais waaw xam nga Youssou Ndour i bu baax waaye grand man Youssou Ndour rek laa xam. ah bon oui man moom rek laay déglu. gis nga nag Youssou Ndour. boo déggee Future Relève. daanaka man la ñuy wax. waaw mais grand man nu may def ba gis Youssou Ndour. mais loolu c'est simple. waay nan laay sama sama téléphone. kay waaw ma woo grand bi. waaw ko woo ko paas ma ko ay ngir yàlla rek waaw yéen moom. mais grand yow grand baax nga jàng leen ngeen bañ. bien. Ah. sama crédit dafa jeex. dafa jeex. crèche bi jeex na. wax mais bàyyi ma droité nii xam nga. waaw jox la nga jënd crédit. waaw mais nag bu ñu jënd il ñu jënd carte bu 5000. ñu xamul ah. ñun ñun fi ñu leen di jàppee ñun ay détective privé la ah. foofu lañ leen di gaañi. yow nag code bi ma jox ba kii bu dégg ma xam nga yaw yaa yow yaay xam ba ca ah. man maay alpha bu ma nee alpha pour xam ba nga xam ni alerte am na. eh Jaxaaw quel quartier. c'est la meilleure quartier. c'est la inspecteur Gabou léegi ñëw ànd ak ko xonk cur. ah. il arrive. fu ñu toll. mi ngi ñëw ubbeeku. ah. mi ñaata mètres. alaaji cinquante mètres. ah trente mètres alaaji mi ngi egg de. boo nee rek attaqué naa de. alaaji ubbi nañu buntu kër. ah. alerte rouge. alaaji kii ab japonais la àndal. ñeel avant marque rek. douze mètres. il arrive yaa ma waaye yow kër yi dina bëgg kër yi. yow foo jëlee kii boppam bi mel ni essence eh! bien kon yow xam nga sifflet euh, charte yi da nga koo fàtte. fàttewuma règlement bi. waaw euh, kii Myriam la tudd. Makeba wala. mannequin la pas maquette. hey what's the problem they are crazy or what. Hmm, not problem Miriam. fii du boutique bu ñu jaay kii si yaa ngi fii. yow du ko gosa naan may leen ma tuuti may leen ma. Ah. may leen ma tuuti. kii sama jigéen la du sax sama jigéen américaine la. waaw de quoi maanaam États-Unis la jógee day def mannequinat. waaw déggul wolof anglais lay làkk ak nasaraan. Hmm. waaw elle est mannequin. moom ñëw waaw ñëw Sénégal nag pour def casting wut ay mannequin hmm. Boy Ndiaye boole ma ak moom ndax moom da yëngu ci wàllu mannequinat ñëw pour def casting Sénégal waaw sama xel nag dem ci kër gi euh, yàlla dafa defal fii néeg desitu ci alaaji ah, oh yow nuyu ñu chaque boor listen to me chaque boor nuyu ñu what's your problem oh, listen you don't have a house eh, am na am na yes listen hmm. me I don't live in Sénégal Yes. I'm just here for moving in the field of top model, you know. Mm. I just want to have somewhere to live for some time after I go in America. Yeah. Yes. Mm. yes. You were talking about what? You look like a dog. Look at you. Yes. What is it? You look like a dog. Yes. stop your yes. waaw d'accord <laughs> jarul na docteur rek ngay xool ji koy lantino li <laughs> ñu waxoon nii. waaw c'est-à-dire li mu. am nañ lépp non non non yes gu bëri gi ngeen war a. gàmb bi rek nga dégg donc loolu daal ci gàttal mooy mooy mooy ñëw gi. moom déggul anglais. waaw ah, anglais la dégg. Ah, waaw ah, ak français. déggul wolof mais ko mën na noo def. man ngeen def moom rek laay làkk. voilà he speak English. What's your name? waaw waaw waaw. Your name, I say your name. wuy ko li nga wax lépp waaw. dëgg la de. <laughs> You live here? man nga wuyu ko ci li mu lay laaj dégg nga. alaaji tontul ma ko yaa ma doon yaa ko ñaanoon ba ngay wàcc nag daa <laughs> jëlal rek. nee ko daal dëkk na jeex na. c'est bon na indi ay bagages. voilà he's very good. no problem. not easy business. boo ko waxee day mel ne ay. Eh, ku dem nee na ko moom moom kër gi si anglais. non noppi rek dégg naa ko mu naan ko ay gut bu ko waxee loolu day mel ni lu bi ne day. alaaji alaaji man mi mu wax ni dafa wut kër boole ma. gut baax na. mooy ah, gut loolu nga ko wax. mooy na mooy gut. Ah, ah, yóbbu ko ci kaw. ay go uh, uh, in house. Euh, yóbbu rek la wax nag. abandon de poste la def tey de. daa abandon de poste de kii. yow ndaw si wóolu nga ko eh wuy eh, ma wuy ma wuy ma yow nag àddinay xel jamonoy bët ba nga nekk capitaine entraîneur ak ak buteur xale bi bàkk ak man ah. alaaji kii nan laa koy bàyyee yow ah bàyyi dama lay mbëkk de doo bàyyi sama bët ji dama lay mbëkk de i alaaji kañ nga daan xëccoog man yat yat yat waxal ba ma balaak ma xanaa dootoo dootoo dootoo Baye Fall Baye Fall ah dangay <laughs> ah, danga may defiyee Ndioba. bàyyi sama génn bàyyi sama génn du yàqu ata ata man nga yàq ata ci biir alaaji fi naan naa ñàkk kañ ne naan koy ñamal ma yaa ko ko wax de di nga feeñ ne ko fi nar kii nar ko ah, kan ji njooba yow njooba nekk fi kat